ginnaaw biñ sant yàlla junni ci yonante bi ñu ngi siyaare ñëpp di bégewaat ñëpp di nuyu ñëpp euh, di ko dale ci boroom dëkk bi sëriñ Maxtaar Mbay Kéré di ko ñaanal mu yàgg fi euh, buñ paree daal di ci teg ñi nga xay ne par exemple ñooy waa dëkk bi muy xalifa yi sëñ Mataar ñëpp ñu ngi leen ziar di leen di leen di leen ndokkeel di ñaan ñoom ñëpp ñu yàgg fi ànd ak wér euh, biñ paree ñu toftal ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fi teew ñoo waral jataay bi te jóge ba Touba donc euh, di waa C50 di sëñ Saliou Sylla mi jiite ko euh, moo paree dinaa ñëw ci présentation bi ñu ngi koy nuyu moom di ko ak waa ak délégation ñu paree ñu daal di nuyu ñi nga xam ne tamit mooy sama mbokki dëkkandoo yi nga xam ne ñoo nekk ci suñu ginnaaw ñëw si suma ci mënee lim rek mën naa jël ku mel ni waa Kër Kab waa Njalaxaar waa Guy Mbaam. ak waa Ndindi ak waa Guroki yaakaar naa ñoo ñoo fi jot a teew waa Mayel ñoom xañ na ñu ngi ci yoon bi ñëw ak waa Kéré Ndaw donc di leen masawu man ci sama tour d'abord man en personne xaadim ah, parce que yoon bi daa met takk ngeen ay charrette ñëw ma woote ngeen ñëw wuy si loolu rek jar na sant kon ñu ngi leen di masawu di leen nuyu buñ paree ñi ciy teg sama yaay booy yi su ma ñëwee ba Kéré Mbay ñoom laa jiital bala maa ñëw ci xale yi kon. soxna yi ñoo ngi leen sant di leen gërëm di leen masawu coon tamit di leen jégglu ngeen jéggal ñu bu baax bi ñu nuyoo ba pare ñu ñëw ci li nga xam ne moo ñu fi tax a muy waa Serigne Saliou Sylla mi nga xam ne yaakaar naa su ma defee présentation bi sax xam naa sûrement ñu ko dul xam xañ na muy am na sax ñu ko ciy xam wala ñu xam waajuram ndax ci école primaire bii la jànge ñun ñaar ñoo njàkk fi ñu jànge dama jàng ba ñëw moom mu ñëw jàll ñëw ñëw jàng euh, barki dem ñëwoon na ci dëkk bi pour ñi ko xamut waaw ah, moom mi ngi ko Touba Corniche Daara Jolof waajuram di Aliou la docteur donc ñëpp xam nañ ko mu ànd ak eh, Abdoulahi la moom mi nga xam ne donc politicien la ñëpp xam nañ ko su li tax ma tudd papaam nag mooy ñu bëri la plupart fii papaam la ñuy gën a miin ci tund yi ah, su ma su ma tuddee papaam rek ñëpp danañ ko xam moom aussi donc fi la jànge fi la defee primaire waaw barki dem ñëwoon na fi doon joxe ay lu mel ni ay fourniture ci école bi man aussi nekkoon naa voilà donc moom daa am lu ko tax a jóg moo tax ginnaaw bi ñu déggante téléphone maanaam moom comme mi ngi mel ne rek maanaam morom même bu dul sax politique wala leneen morom ay classe ñaar ñoo xam ne dañoo dañoo moromante ànd di def defandoo lépp kenn ki tey soxla morom ma kenn ki lu mën a xew rek danaan ko li nga bëgg naa la ko defal waaw loolu mooy maanaam loolu nit la du jëm politique wala daal nit ak nit nit ak morom ma wala mbokk ak morom ma waaw côté boobu surtout foog ma insister ci bu bari ñun ñaar ñoo suñ kër këram ak suñ kër man seen kër laa daan yendu guddi gi suñ kër lañ daan toog voilà foofu donc muy tudd seen Saliou si la boo xoolee ski bii ñu yor spécimen bii ñu yor euh, mooy bi bi nga xam ne par exemple mooy seen moom la ñuy moom la ñuy voté moom nag bokk ci élection yi ñu jëm muy législative yi ñu jëm mooy tête de liste département donc boo leen xoolee ci photo bi nekk yaakaar naa su ma ju Abdoulaye Sylla mooy magam bi moo ci nekk magam la ma waxaale ak muy Abdoulaye Sylla ñoom ñoom ñoom magam la mag la ci moom mooy doomu Aliou la moo toog nii moo sol mbaxana mi waaw ñu xamee ko bu baax léegi nag moom ne daam lu ko tax a jóg mu coordonné woon ñu ne kon léegi comme daam lu ko tax a jóg te keer keer nitu keer loolu ñu xamee ko noonu bu mu yem ci keer nañ ko wool ñëpp ci laa coordonné ak euh, sama gars yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ñoo bokk sport bi di yëngandoo ñun ñëpp ci côté sport muy waa Kër Kaabu Guy Mbaam Njalaxaar Ndindi ba côté Kanté mais ci Guro kii ah gars yëpp ñëpp teew ci keera ndaw mayal ñoom ñëpp ñu ñëw depuis ce matin ba léegi ñu fi moo tax ma masole woon deux fois parce que ba léegi nii sax boo xoolee daa xaw tànk voilà donc léegi suñu saali ginnaaw ma gàttalee rek loolu moo nekkoon yitte yi kon damay gàttal rek pour comme ñu war a wax daa bëri jox suñ xaadim mu wax li nga xam ne mooy yitte yi par exemple suñ Saliou moo ko tax a jógee ba Touba ñëw fii ngir seet nit ñi. duñ def lu dul kontaan parce que bu ñu wootee gis magi yi suñ papa yi mais aussi tamit suñ yaay yi nga xam ne seen kanam yi yàgg nañ yàgg nañ leen a gis miin nañ leen ñu yàgg ñoo tette fii bi ñu nekk keere nekk ci ay jafe-jafe boo fi jafe-jafe yi ëpp gënoon na ëpp lii ñu tette ñu ci lu bëree bëri kon nag tey bu buñ dikkee ba nga xam ne yàlla am na lu ñu bëgguloo bañ ñëw fii ñu yombal ñu ko dikk suñ kanam dañ leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm di sant euh, Kaam Ndiaye mii nga xam ne suñ grand frère la suñ lépp nga xam ne ku dynamique la lépp loo xam ne rek luy jëmal Kéré kanam la saa yoo ci wootee danga ko ci fekk te ndaw loolu rek la mën a jëriñum réewum wax dëgg yàlla am am réew boo fa juddoo ab dëkk boo fa juddoo yaroo fa ñu jàngal la fa defal la fa lépp yaakaar naa lépp lu dëkk ba soxla rek buñ la wootee da nga war a gis. di sant délégation bi nga xam ne ñoo ànd ak Serigne Saliou Sylla nga xam ne ñoom ñoo daan ànd ak ñoom di jàng si fii moom nag dem na ba nga xam ne peut-être nekk na ci beneen beneen statut la muy di politique wala muy yëngatu ci wàllu développement. mais wax dëgg yàlla bu ko neexoon mu dem ànd ak ñeneen mais ànd ak ñeneen xaritam yi ngay gis boo seetaanee ay photos wala moom nga daan gis bi mu nekk xale ñoom la daan àndal kon donc ñoom la àndal dikk fii kon yaakaar naa ne fii ñu dëkk dikk moom fi ñu war a dikk dikk la muy suñu dëkk di ko sant Serigne Saliou Sylla mi mi nga xam ne mooy représenté ABS mooy Abdoulaye Sylla moo koy représenté ci département euh, département Mbacké moom lañ investi pour élection législative yi di ñëw te nag moom wax dëgg yàllaam da doon nekkoon benn acteur boo xam ne ci wàllu développement la doon yëngu boo ko gisee sax politique bu gënoonu koo ñor lu mu doon yëngu mooy day fekk ñi nga xam ne ci couche vulnérable mooy nga xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw mu leen dimbali ci lu bëree bëri ci ay formation ci wàllu dund ci yooyu la doon yëngatu mais aussi tamit di jàppale mbootaay yi nga xam ne ñoom ñooy setal dëkk bi mooy bàjjenu gox yeeg yooyu ñi nga xam ne ñoom ñooy setal dëkk bi ñooñu la daan jël daan leen dote ay matériel di leen jox di leen dimbali mais nag ñu dem ba ci biir ci lañ ne ko gis nañ li ngay liggéey ci Touba bi ni ngay œuvre social mooy ni ngay yëngatoo di dimbali nit ñi kon donc war na mën a dugg ci politique bi boo demee ba nga xam ne yàlla may na la yenn pouvoir yi may na la yenn dombal tànk bu boobaa dina gën a dina gën a yombal sa liggéey léegi nag euh, pré élect pré kii lañ campagne lañ nekk biñ ko nekkee nag mënoon nañoo dem feneen mais dañ ne keere gi nga xam ne xam nga nit moom fa nga jànge xam-xam yaakaar naa ne amoo ko ëpp waaw parce que bu dikkoonu ñu tegal ko fii jàngal ko baa ah donc kon yaakaar naa ne du am yenn compétence yi du am yenn connaissance yi bay mën a xam luy politique bay bay bay laaj ay ay ba bëgg nekk euh, ba bëgg am ndombal tànk pour jiite leneen ëllëg kon donc fii moom la war a mën a njëkke muy keere gi ko dalal keere gi ko dalal fi lay njëkkee te nag ay ambition ci keere bari na keroog dañ ci doon waxtaan dañ ci doon waxtaan lu baree baree bari ma ne ko keere dañ dëgg gi dañ koy wax ñun suñuy mag fi lañ jànge suñuy mag fi lañ juddoo am na yeneen politiciens yu fi nekkoon yoo xam ne suñu mag lañ tamit mais yaakaar naa ne am na ndombal tànk yoo xam ne amoon nañ ko mais gisoo jëriñu dara dëkk bi waaw jëriñu dara dëkk bi dëkk bi ñu fi defee hôpital ba tey dispensaire bi yaakaar naa ne bañ ko commencé ba tey gisoo mu avancé tali bu xonq baa ngi nii ran bi da ngay teggi bay bëgg a dee da ngay teggi pour nga ñëw ay jafe-jafe nga am te dëkk Kéré ak Touba sorewuñu mais pour nga agsi fi ay jafe-jafe kese la kon donc moom mi nga xam ne du ne nag da leen defal lépp waaw ndax mënul lépp parce que amul appareil l'État mais nag bëgg na bu demee ba yàlla dimbali ko ba yàlla dimbali ko ci li muy yóotu bu boobaa lépp lu man ci keere dina ko def parce que il faut ñu fexe kàddoom ñu koy dégg muy kaasal keere bu ëllëgee keere bépp doléance boo xam ne am na ko moom dina ci taxaw mais aussi tam gis nañ suñu yaay yi fi nekk ak xale yi boo gisee ñi ci jàngul des fois dañuy am problème am métier waaw dañuy ci fii nga leen gis ci village bi la ñuy nekk fi la ñuy toog peut-être ñi seen jàng mënul continuer peut-être ñi ñu kon donc ak suñu yaay yii nga xam ne dañuy xëy presque ñoo yor kër yi waaw bawol bawol moom noonu la ko yàlla bindee wax dëgg yàlla kenn demul ñu des ay jàmbaar dëgg lañ lépp lu baax ci kër yi ñoo ñoo ñoo ko fi def. kon donc moom dafa am projet yoo xam da ko amoon muy wàllum transformation des produits locaux maanaam mbay mi ñuy bay du li ñuy bay produits yi ñuy bay ñu koy transformer loolu doon nañ ci kon am na projet boo xam doon nañ ko ci def bu ñu demee ba si kanam mu fexe ba ibbi fi benn école bu ñu naan école C50 nga xam ne dañ fi indi jeunes yi ak femmes yi mooy mooy suñu yaay yi di leen fi indi di leen fi former léegi bu ñu leen former euh, li ñuy bay nii dinañ ko mën a transformer bu ñu ko transformer duñu leen bàyyi noonu parce que mën nga transformer euh, matière produit nga euh, transformer ko ba pare bam mu nekk produit fini mais lan mooy problème mooy écoulement maanaam ba fexe ba jaay ko ci marché bi mais bu boobaa dina fexe ba xam ne dina leen accompagner nan la leen accompagner. par exemple dina leen def ay près xam nga prêt boo ko déggee ci banque yi lañ ko def mais prêt day am ay taux ay intérêt des fois day am intérêt mais boobu day am day am prêt taux bi zéro pour cent lay nekk c'est-à-dire boo transformé kii ba pare dina la financer nga mën koo jaay boo paree nga yóbbu ci njaboot gi te yaakaar naa ne am réew moom bu jigéen ñi di liggéey xale yi di liggéey yaakaar naa ne politique sax dootuñu ko doyal dara waaw loolu nag lañ fexe loolu lañ bëgg mu jóge ci euh, réew mi plus particulièrement kër gi nga xam ne ñun mooy suñu lépp bu ñu fexee ba jigéen ñi liggéey xale yi liggéey yaakaar naa am réew neex kon donc daal Serigne Saliou mii bëgg nañ ngeen jàppale ko bu baax a baax a baax a baax. ñoom ñëpp ci projet bi lañ bu boobaa dañuy xool rek village bu nekk kenn ku koy représenté bu boobaa ñu xool lu ñuy liggéey ci école C50 bi waaw Serigne Saliou nag li ma leen wax rek yaakaar naa présentation bi sax jëru ko waaw ndax euh, suñu jaay maire wali mais xam na ko ñu baree bari xam na ko ndax bi mu nekk tout tànk fii la nekkoon ñu ko ñu ñu ñoom ñoo ko yoroon ci école bi di ko tette kon donc jëru ñu koy ñu koy présenté mais nag quelques yi nga xam ne mooy li nga xam ne jot na ko def ci Touba rek lañ bëgg a wax xam nga ñun murid yi dañoo nekk ñoo xam ne dañoo amuk taalibe te aussi tamit suñ kilifa diine yi lépp loo leen defar rek maanaam da ngay laal suñu xol te Ablaye la mi grand frère yaakaar na moom mi magam am na liggéey yoo xam ne def na ko ci Touba te ba mu koy def xaaru politique waaw politique taxoon na ko jóg kenn mësu koo gis biñ jógee biñ jëmee élection législative yi ci lañ commencé di gis photo Ablaye Sylla man def naa seen kër plus de vingt cinq ans mën naa ne mën naa ko fa def seex mi def na ko kii def na ko baara mi mais musuñu teg Ablaye Sylla bët musuñu koo teg teg gis nga senegal ku yorub xaalis di def leen li te génnoo wonewu xamal ne kooku nitu nit nit ku baax la koo xam ne yaa jël barabu Seex Sidi Muxtaar Bule moom moo ko defar barabu Sëñ Fall ba ku fa jaar da ngay yéemu moom moo ko defar mbaar mii di mbaaru kii bi nekk ci bàq nga xam ne ku fay indi euh, ku ku ku génn àdduna fa ngay noppaloo moom moo ko fa def Abdoulaye Sylla moo ko fa def Masaalikul Jinaan bii nga xam ne moom la murit yëpp di di tiitaroo deux milliards yi moom moo ko jox Cheikh Sidi Moukhtar moom moo ko teg ci loxoom te musul génn tele man xawma ko ñi ànd ci délégation bi kenn musu koo musu koo gis waaw assainissement marché ogas moom moo ko fi def te olof Njaay nag dane kuy raam di la bokk bu yoreb taxi dugal la ci kon donc ñoo ngi leen di ñaan ñoo ngi leen di ñaan yéen ñëpp yéen ñi nga xam ne yéenay suñuy mbokk yéenay suñuy yaay yéenay suñuy lépp ngeen ñëw adhéré ci projet bi waaw lépp lu ñu leen wax rek incha allah dinañ fexe ba mu réaliser wu. Kaam Ndiaye mii nag waaw muy jeune bu dynamique bu ko neexoon mënoon na nekk ci leneen mais xalaatu lu dul dëkkam bi ko Serigne Saliou waxee dana ko ñëwal dinaa woo waa dëkk bi ñu waxtaan ci kon donc ñoo ngi leen di sant damay wàcce fi kàddu yi xam ne dafa xaw a guddeeg yooyu ñoo leen sant di leen gërëm di sant tamit village yi nga xam ne les villages environnants mooy village yi nga xam ne ñooy go mooy gox yi nga xam ne ñoo ñoo nekk ci Kéré ñoo ngi leen nuyu ñoo ñëpp seen teewaay muy keere Ndaw waa Kër Kàbbu Guy Mbaam Njalaxaar Ndindi et Gurooki ak aussi suñu yaay yi ñi fi toog yëpp ñoo ngi leen di sant di leen gërëm. avant tout di nuyu waa délégation bi nga xam te ñun ñoom moom lañ ñoom lañ àndal. commencé ko ci Baye Saliou Sylla mi nga xam ne ni tey jii nii présence am wurta jaaxal kenn fii ndax comme ni ko monsieur Ndiaye waxee ñu koy wax Khadim Ndiaye Baye Saliou Sylla moo gi yéen yéen a ñoo moo ñoo moo yéen a jàngandoo fii nii si Kër Mbaye gii nii nit ki nag mënoo jàngandoo moom ba pare mu jël benn affaire di la ko jaay déedéet taalibe la leen jëkk jaay te taalibe bu la ko nit jaayee da koy jënd te jënd ngeen ko ba ba ñëpp xam ne jënd ngeen ko ndax bi mu leen woowee da ngeen koo wuy si ñi ñi ngi taxaw ñenn ñi ñi ngi toog ñenn ñi ñi ngi ëpp ñenn ñi ngi ci leneen te teewul da ngeen a toog di ko déglu da leen da woo ci benn affaire boo xam ne nii tey bu ngeen ko ca fekk see bu yàlla defee li mu jot ci mi ngi mel ne tey jii ngay jël ci ngay tànqee ci bërigo bi ngay waaxoo ci bu sa buntu kër di tànqee ci bërigo bi ndax noonu la mel ndax ko ñam bee mu dëkk tey jii nii magam magam magam ñu koy wax Ablaye Sylla bu baax te ñun ñëpp ñu koy dégg bu baax tey jii ni maam réalisation yam fa def tey jii kenn ku ne bëggoon nga am doom ju mel ne Ablaye Sylla ca biir koñ ba ndax la muy def kii tudd na ko du ma fi ci jaaraat ndax def na ko ci ay marché ak di ko def ci ay barab yoo xam ne nii nit ñi sàkku nañ ko faak fu ne ma di ko fa def lii nag élection yoo xam ne yuñ jëm la yoo xam ni nii li ñuy sàkku mooy kenn ku ne ka la gën a jege nga dimbale ko te ñun Baye Sall Sylla mii kat ngeen jàngandoo ak moom yéen ngeen bokkoon ak moom fi ngeen doon jàpp naa moo leen gën a jege te la gën a jege rek ngay dimbale ci ak def ci la boo leen ko jàppalee seen bopp ngeen jàppale soo leen ko bàyyee tamit da ngeen bàyyi seen bopp moom nag ñëw na sukk ci seen kanam jox leen boppam ne leen man de li ma bëgg mooy ngeen jàppale man mii di wax ak yéen a ngi nii maa ngi nii yàlla dimbale na ma maa ngi liggéey ci ci te ci xamante ak moom a tax liggéey ndax tey jii nii bu ma xamante wutoon ak moom amaana am na ci nit ñoo xam ne nii ci jataay bi du ma tudd ay tur ñoo ma jox tey fa may liggéeyee te ci moom mii la te moom la jaar kon maanaam nekkul dama koy waxee ngir bopp bu rëy wala dama koy waxee ngir dafa am lu ma neex déedéet dama koy comme lu mu la dig loo xam ne ni day ñëw bay boo nga séntu ko bu soobee incha allah dana ñëw te li ñu leen di wax mooy keere ak ñi dox gox goxaat yi nga xam ne ni wër na keere ak képp koo xam ne ni yow keere nga bokk te nga yaa am nga mbokk ma wala am nga parent bu bokk keere de passage ñoo ngi nuyu parents yi baax kilifa gi baax ñu ngi lay nuyu di la tatagal di la dalal bu baax di dalal ñi nga xam ne ni ñëpp ñëw nañ fi di leen wax ne fii nii suñ njariñ kese moo fi nekk Baye Sall si la suñ njariñ la Ablaye si la suñ njariñ la bu ko defee man moom ci soxna yi laay waxe ñoom yaakaar naa boobu ba léegi ñu ngi leen di wax kan mooy Baye Zale Sylla yaakaar naa kon jurutul ma ciy ñëw waaye Baye Zale Sylla dama leen xamal ne ñëw na fi ñëwaat na fi ñëwaat na fi yaakaar naa nag ñëw yooyu dañoo wuute ñëw bu njëkk bi dama leen di wan ne Baye Zale Sylla du ab politicien ndax ñëwin bu njëkkam bi ak ñëwin bi ci topp ak ñëwin bi ci toppaat yëpp nu mu demee première ñëw bi yaakaar naa man dong maa ñëwoon ak samay nag. loolu da yombul ci ab politicien mu yónni la jox la ay nag na la demal yow képp caméra topp ma dara topp ma man kese ma ñëw joxe ko ci dëkk bi yaakaar naa ci kër yu mu duggul woon bëriwul nag yooyu noonu ñu doon séddale ci biir dëkk bi Serigne Saliou Sy lim yi moo ma ko joxoon te yaakaar naa ba ma ko joxee mënoon na jox ab caméra na ko topp ko ku jox nee ko jox na ko waaye defu ko de da ko doon def ngir yàlla kon nag ki nga xam ne day joxe te yàlla tax kooku bu la diggee leneen man de ah ba ma ko dalee ànd ak moom ba léegi ñu ngi dem ci jataay yu bëri mais liñ fay wax lépp dañ koy jëf parce que duñ wax luñ mënul kon Sëñ Saalum mi ku jar a jàpp la te yéen waa Kéré dama leen di wax rek ngeen jàpp ko xam lu tax parce que boo xoolee jataay bi ñu fi toog ak délégation bi ñu àndal parce que ñëpp ay doomi Kéré lañ Xaarim Njaay mi du leen ko présenté sëñ Daawda Njaay mais noonu ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne man ñii damay ànd ak moom chaque jour guddi ak bëccëg dëkk bii laa dëkk fii laa yaakaar lépp te yaakaar gi ma yaakaar ci yéen jigéen ñi laa ko gën a def carte boobu ngeen yor booy boo ngeen xàmmee ko bu baax a baax a baax ndax dina leen ci sonal lool man boog parce que am na lu ma ji te li ma ji dina tax dinaa dugg ci dëkk bi carte bi dinaa ko wan kenn ku nekk dinaa la ko wan ngir bu bis baax nga voteel Baye Sall si la mii ndax que nit ki am na loo xam ne bu la ko defalee li nga ko mën a faye mooy lenn ni mu bëgg nga defal ko loolu lenn la bëgg muy ah lii ñu ko jiital mu am ci ndam pour mu am ci ndam nag yéen ñi rek yéen ñu mën a jàppale yéen rek yéen ñu mën a jàppale donc kon yéen ñi ngi leen tàllal loxo bu baax a baax a baax di tàllalaat loxo mooy xale yi nga xam ne ñan ñoom laay àndal guddi ak bëccëg muy sama génération ñi may àndal guddi ak bëccëg ñenn ci ñoom daana ñëw ci salle ba di fa liggéeyee parce que man lu ma nekk damay bëgg waa kere nekk ca am na ci ñoo xam ne fii lañ daan jógee di dem foofu di fa liggéey te bu duñ leen neenal bu ñu ñibbisi kon leneen bu amaatee tamit noonu laay defaat rek ñëwaat fii ci doomi Kéré yi jëlaat ñëwaat yóbbuwaat foofu bu laajee jigéen jigéen dina fa am bu laajee góor góor fa am parce que ñun Kéré lañ am suñ maxtaar mooy suñ maam lépp lu am kere lañ ko yéene yoon bi ñuy wax lépp lu ñu wax. man gëm naa ne Abdoulaye Sylla bu gagné fii 100 pour cent billaahi tëli bi doy ko sax am ngont bu gañee nag 100 pour cent laa leen wax nañ ci jàpp bu baax a baax na xam ne Sine Saalum yi ñun moom la am man nag samay wax du gudd parce que dama leen di soññ rek ngir ngeen jàppale ko ngir sama jëmm yaakaar naa li may wax nii nag nekkul lu may kafe damay duggaat ci dëkk bi këroo kër wan leen carte bii ngeen xam kan mooy Abdoulaye Sylla ngeen xàmme ko ndax kat bëgg nañ mu gagné ndax ab sëñ Saliou Sy ñu mu gagné fii day mel ne man maa gagné ndax xam naa ko xam goo xam ne yaakaar naa lépp lu ngeen ko wax suba ba ngoon dina ci jot xam nañ këram ñoo bokk benn koñ yaakaar naa li dox suñuy diggante kër bëriwul kon sëñ Saliou moo noonu ah xale bu yaru la jàmbaar ba noppi nag lim nekk bëgg na ko lool. kon yéen ñi nga xam ne ñëw na fi ñëw na fi wax leen soxlaam ngeen jàppale ko ci ak yeneen dëkk yi nga xam ne ñi ngi fi liste baa ngi nii ma tiim après kenn ku nekk dinañ jël sa contact dinañ la woo dinañ ñëw ba sa biir kër ñëw seen biir dëkk waxtaan ak yéen lii nag aw waxtaan dong la dinañ ci jàppaat beneen suur boo xam ne waa dëkk bi ñëpp ay génn ñu wan leen Ablaye la wan leen baay Baye si la ngir kat li tax ñu def loolu bëgg nañ mu gagné 100 pour cent te pour pour mu gagné pour cent il faut que ñu ñu wane ko dafa am yoo xam ne kenn di ko tëj ci ay ruq dañ koy génnee ci penc mi ñëpp gis ñooy leen kii lañ bëgg mu gagné Kéré Mbaye ndax kat jot na doomu Kéré gagné waaw di jéggalu bu baax na ci kàddu yi. président Abdoulaye Sylla bu ñu xoolee li li muy def mu nëbbu mopp foofu li nga xam ne moom lañ moom lañ xam ñun di leen ko wax. donc dañoo jóge ci élection présidentielle jëm ci ay élection législative élection présidentielle nam ko jàll na nag mooy élection gox-goxaan. li tax ñu tudd ko gox-goxaan mooy maanaam kenn ku nekk da ngay xool gox ba nga dëkk ña fa ña fa ñañ fa représenté nga xool kan nga xam ni yaakaar nga ni kii kat moo la gën a jege ba nga xam ne ëllëg si biir buñ ko falee ba mu dem si pencum ndaw réew mi moom kat dina ah kere nangam kere wax nañ kat kere yoon bi am na problème bu ko defee moom dina wax bu ko defee nit ñi dégg leen mais du caage ni waaw ku nekk ka la ka la gën a jege moo gën a xam sa tawat. donc bu ñuy bu ñuy fal nañ xool ñoo xam ni kët ñii kët jege nañ ñu xam nañ lan mooy tawati gox bi bu ko defee ñoom bu ñu leen ko waxee kat dinañ seen seen seen dégg-dégg dina àgg peut-être foo xam ni ñun ñii suñ kii suñ baat àggu fa bu ko defee ñoom ñu mën ñoo jottali suñuy suñuy suñuy jafe-jafe loolu mooy élection législative donc nan fexe ba nga xam ne bu ñuy fal tamit nañ fal koo xam ni dina mën a jottali suñ kàddu ba nga xam ne ñoom peut-être seen kàddu dina àgg foo xam ne ñun ñii suñ kàddu mënu faa àgg waaw loolu daal mooy élection législative nekkul ne ay ay affaire élection la wala yooyu maam entre entre nit la ak nit ñoo xamante ni dañoo gonendoo màggandoo bokk seen lépp parce que man bu ma xamul Baye Sall mi itam xam naa xaadim mais man du ma ne xam naa Baye Sall wala ma ne xam naa Abdoulaye Sylla mais xam naa xaadim bu baax a baax parce que ñi ngi doon jëflante te li ñu boole espoir la ñu ànd ànd bu rafet nag mu doon nit koo xam ne ni amul benn problème koo xam ne ni lu la wax tey maanaam kaddu yi boo ko seetee moog jëfi subaam dañuy bokk kon nag kooku mënees na koo jàppee nit koo xam ne nit ku baax la kon daal liñ mën a wax mooy incha allahu rabbi ak lépp loo xam ne ni luñ man la ngir jàppale Baye Sall ngir jàppale Baye Sall Sylla mii euh, pour Abdoulaye mii danañ ko def ci kàttanu yàlla. di leen nuyu yéen waa délégation bi di leen masawu coona ndax yoon wi gis ngeen ko ni mu mentee ak ni mu baree ndox yooxu ak wàllu ca fan ka gën a jege te ñun sëñ Saalu mii fas yéene nañ koo jàppale buñ ko jàppalee mu jàppale ñu. te ñun li ñu soxla mooy jigéen ñi moom ñoo ngi xëy di mbëkkante fajar di wàcc ngoon wante amuñu doole bëgg nañ ay formation di mën ci di ci xëy ndaxte ginnaaw ñun dañuy jaay laalo bu ëllëgee mu diig ca ñu jaay kaani mu diig ca ñu dem jaayi kere mu diig ca léegi ñu bëgg sunum xëy formation xam ne yoo xam ne nii ñu di ca liggéey bët bu yàlla sekk ñu di ci xëy ndax jigéen ñi ay jàmbaar lañ te bëgg nañ ay financement ndax boo amul ci looŋooy doo mën a liggéey sunu doole bëriwut saa su ne ñoo ngi xëy ci sunuy gone di xëy ci kër yi ndax jigéen ñi moom ku xëy ci kër fa koy fekk boo ñëwee ñoo yor kër yi ñoo yor gone yi ñoo yor élèves yi te sunuy doole mateew ko ñun nag ku ñu jàppale bu baax lañ bëgg. nag ñun ku ñu defal ñu defal la ñun nag fas yéene nañ ko. yooxu ca fan ko gën a jege waaw boo yooxee wal demal ca fa nga gën a jege ndax suñ Saliou Sylla mi fas yéene nañ koo jàppale bu baax a baax a baax. di nuyu sunu gan gu tedd gi ak délégation bi mu àndal ñëw ci ab dëkkam di Kéré Mbaye ginnaaw moom fi la commencé am njàng ànd kook sunuy doom tey ba yàlla def tey jii mu am lu soxla ci ci réew mi. ñëw ñëw ci ñi mu doon ñi xam ne ñoom la marché ren nekk ci école bi jàng muy suñuy doom ñu ñëw ne tey jii kat lii laa bëgg te yéen ñii ma doon ànd tey yéen laa ko fas yéen àndal di ko wut. kon loolu kon suñu xaadim mii bu fekkee ne tey jii moo woote woote bii ak moo moroomam mi fi boog dajal ñëpp kon ñoom def nañu rafet kii nga xam ne mooy seen morom ngeen boo ko den jàngal ngeen xam jikoom xam xam jikkooy waajuram ndax nun kët liñ dégg ci waajuram lu baax rek lañ dégg ci moom tey lu baax dong lañ dégg lañ dégg mu di ko def di def ay financement yu am solo yoo xam ne di ko dimbalee jaam yàlla yi te yàlla rek tax kon nag jëmm nag bu dee dimbale nit te yàlla rek tax kon koo jàppale ko jot na kon tey jii ñëw nga fi xam ne fii fi nga yaakaar ne fi lañu fi nga mën a amee dara bu soobee yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba ah say moroom ak say say yaay ak say mag ak say rak dañu fas yéene nekk sa ginnaaw jàppale ba li ngay wut nga am ko ndax jàpp na ne boo ko amee nun li nga xam ne lii mooy suñu jafe-jafe ci dëkk bi yaakaar na am doo xam ne lu bari dañ ko ci mën a saafaraw ndax li nga xam ne lii tey jii sa baay yónnee woon na ko fi muy ay nag yoo xam ne indi woon na ko fi bi mu ko indi kat publicité ko néew néew da ko publicité pour ñu xam ko da koo def rek yàlla tax kenn ku nekk da ngaa xëy xëy dégg rek ñu wala ñu fëgg sam néeg jox la jox la jox la jox la jox la saam xam ne bii ba nga ci xëy loolu sant yàlla bu baax a loola nag dara wërul ko lu may jëf jëf ju baax rek jëf ju baax joojee nag ci tànk moo mu awan nag ci nga aw kon nag ñu ngi ñaan suñu borom jàppale la ah xale yi ngeen góorgóorlu yéen ñi xam ne yéen kat yéen a tax mu ñëw fi ngeen jàppale ko bu baax a baax a baax dugg ci biir dëkk bi waxtaan ak nit ñi waxtaan ak mag ñi waxtaan ak gone yi ba lii mu bëgg mu am ko sëñ Xaadim lu ngeen ci man ngeen def ko. man maa jógee Abidjan doon sénégalais bu abidjanaise mais la politique euh, dafa doon loo xamante ni. dafay laaj ndimbali eh, ñun sportif yi la ñuy évoluer mënuñu politique mais dañuy lëkkaloo politiciens yi pour ñun li ñu bëgg mo mu mën a am parce que nu on évolue dans le cadre éducationnel parce que xale la yor ñoom aussi bu ñu amee santé eh, l'étude et le sport gëm naa ni l'avenir aussi ça sera une réalité li ma li may wax parce que sama olof setul à 100 pour cent ce que je peux dire euh, c'est d'aider la jeunesse pour que ñu atteindre suñu objectif sport na foofu la ñuy évoluer Kéré mooy suñu base parce que man Mbàkke laa dëkkoon yàlla Sëñ Tuubaa nangu ma jënd fii kër ma évoluer ñëw toog ak ñoom Xaadim nekk suñu représentant suñu collègue suñu mbok te si li mu nekk maa ngi si parce que il m'a donné le mieux de respect parce que nit la mat na nit aussi léegi na li ñu bëgg mooy Kéré fu mu toll nii il y plus de vingt ASC avec les villages environnants bu suuf si la ñuy entraîner xale yi foofu la ñu nekk gis nga école bi baaxul seen santé aussi baaxul maanaam man ngaa jóge terrain vous avez une blessure vous avez mal à rétablir pourquoi il pas de soin loolu amul fi fi mbooloo mi jëm dañu war a xool ndax ñoom fi ñu jëm est-ce que li ñu soxlaa mu ngi foofu tey jii boo xoolee ñaaj bii nii ay équipe équipe moo fi nekk xale aussi ñu ngi jàng dans la brousse sans sanitaire loolu aussi yenn politiciens yi il faut ngeen xool loola parce que on n'est pas là pour vous mais on est là pour vous ñun ñun sportif du politique nous marchons dans la réalité Euh, pour que li ñu nekk mu nekk dëgg si ñun parce que ku nekk euh, si kanam xale booy politique da ngay juum ku jiitu xale moom il faut nga wax dëgg nga nekk si kanam dans la réalité moo gën ñi ngi leen ñaan daal ñun ak suñu booy ngeen dimbale ñu ñu am santé étude avec place de loisir boo xamante ni mën nañu sport wàcc. daal daal leen rek lañ koy wax tamit gars yëpp ñu ngi ci ginnaaw am à part de aujourd'hui du leneen moo tax nag. kii fekk na loo xam ne nii moo gars yi fi tamit moo loolu quoi du doo toog fii di ko wax mais nit ku baax la wax dëgg fa man xaw ma Ablaye si la moom laa xam ak papaam ak yaayam mais nekk na ay nit ñu honnête ay nit ñu baax daanañ toog di fréquente ba ay deux semaines man moom xaddime ak ñeneen te loolu ñu ko baax rek moo ko def man musuma xam changement ci moom ñun nag doomu dëkk bi dañoo am luñ bëgg pour bëgg nga jàpp nañu ci ensemble nag yóbbu daal la fa yàlla yóbbu ci barke Sëñ la fa nekk mooy wax képp nga jaman boo waxee bu ñu defee sa jaan wàcc na mais lu dul wax mënoo ko mais ñi ngi la ñaan suñu borom jëmmal la fa yow ndax nit ku baax nga te dara jomb la ci àdduna ñun nag ay jeunes nekk ci dëkk bi ñi ngi ñaan booy dañoo dañoo am ndim am ndimbal yu ñu sàkk woon yaa ngi dégg ndax ñu sport gi nga waa kër ka waa Gimbaam yëpp sport moo ñu dajale fii sport moo tax ñu xamante xaadim mi boobu nag ñun ci leen di yëngu ndax xaadim moo fii ñëw bu bu amee jàngalee Kolda ba ñëw fii am xaadim fee mu tëgg ay tournoi dajale gars yëpp fair-play fu agré képp moo ñu fi boole mais dara ginnaaw yàlla sa jëmm ji ñëw ba ñii ñëpp daje fi lii moom acte bu naagisa lu rafet la te may sàkku gaa yëpp jàppale te yàlla tax xamuñu la nag mais man xam naa la ndax nit ko baax nga waxuma ko pour nit pour dara ndax man xam nga ma moom man du ma ne yàlla nuyu la te gis ma ko man naturellement nii ma yàlla bindee dañuy sàkku nga jàppale ñu ci ay moyo ay ballon ay lépp loo xam ne day ci wàllu sport da cee bokk sa suñu la nag loo ci man rek ndax ma tamit ngay wax loo mënul wala ci kenn dugal ci àdduna man yàgg na ma andi xam nga bu baax daanaa dem campagne bay deuxième rek ñëw fréquenté jagg ba ba ñibbi jot ma ñi fa ñoo fa toog ñoo fay bokk jag maa la ñaan suñu borom jëmmal la Saliou nga dem fecc kaw barke suñu Tuubaa wallahi lépp loo loo xam ne am ngi sa xol bii nga bëgg ko yàlla na ko suñu borom defal te yow borom baa nga wallahi euh, sëñ Saliou xëy na ñun miinuñ la waaye euh, docteur docteur Sylla xaw nañ ko kii tuut sa ah, pap xaw nañ ko miin Ablaye Sylla ECHO 3 bi muy sëkk maagal gi jàll bi bi muy sëkk Touba suñ carrière bi kàmm ñun ñoo ko moom bii mi bi mu ñëw voilà Kaléguer bi ñu ñoo ko moom bi mu ñëw na damaa bëgg sëkk dëkk bi mu ñëwee ay centaine de camion la fi génne da koo def da koo def addi sëñ bi bi ñëwee dañ ne ko ñun duñ la jaay duñ la jaay suuf si tibbal lu la neex nga yóbbu magal googu dëkk bi yëpp moo moo ko sëkk ci ay camion bu Eco 3 laaj laajul dërëm xaar bi ñu ngi lay sant baax dong laa xam ci moom te ma sañan nag moom ñu jàppale ko bu baax a baax a baax a baax xaw nañoo xaje gëj a gisante nag waaye bi ma gisee rek la laa ne ko yow sa waay moom wax dëgg yàlla moom li nga bëgg lépp moom dañ ciy jàpp moom ndax ñoo jànganoo ñoo defandoo lépp seen kër ay màggal kastara jaba yooyu bu ñu ma saan dem ndeysaan seen kër ñun ñett ñu ñeent ñoon ma wax noonu ñoo daan fa dem yaayam ndeysaan bëgguñu lool bu ko neexoon am nañ lépp bu ñu neexoon tëj seen buntu bañ a dugg mais buñ ñëwaan la ñuy lekk ñoom ci ci loolu la ñuy jox ñuy lekk même école bi bu ma a ñëw sax ravitaillement yi muy indi noonu pour boppam daanaka dañu ko séddale ñoom wax dëgg yàlla am bu daal ñu jàppale ko bu baax baax moom Saliou mi ñu ngi leen di jaar eh, ku ci nekk turam ak santam di tàmbali ci nuyoo bi suñ papa ji sëñ Moustapha ñu ngi lay jaar bu baax a baax di teg ci nuyoo bi loxo yi sëñ Xaadim moom mi nga xam ne nii wax dëgg yàlla boobu ba léegi ñu ngi waxtaan ci ay problématique dëkk bi mu nekk fi suñu point focal ci dëkk bi di tam tàmbali ci liggéey bi tàmbali bu am solo di wax ne jotaay bii moom xam naa ni prise de contact la rek xam naa ne am na yeneen jotaay bu gën a yaatu boo xam ne nii incha allahu rabi dina namm nañ ko fee amal suñu yaay yi ñu ngi leen di jaar bu baax a baax dégg nañ jafe-jafe yi dégg nañ jàmbat yi waa zone 2 ñu ngi leen di jaar bu baax a baax fu ci mel ne Kër Kabbu Mayel Kéré Ndaw Kéré Mbay Ñalaxaan en général zone 2 bi pour ma bañ a juum ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ku ci nekk say jafe-jafe dégg nañ ko sama équipe bi gars yi nga xam ne ñoom laa àndal note nañ ko mentionné nañ préoccupation yi nga xam ne nii soulevé nañ ko fi lépp luñ ci mën mu nekk suñu domaine parce que y a domaine y a des xam ne nii état bi moom moo ko war a saafara ñun dañu nekk ci wut lépp loo xam ne nii. namm nañ leen koo wax danañ bëgg nañ koo jëfe ndaxte def mu yegg tamit yàlla suñu borom rek moo ko mën mais lépp loo xam ne nii dinañ jël nañ engagement wax leen ko fii bëgg nekk na lu ñuy bëgg a def ba tax na yaa de ces yoo xam ne nii mën nañ ko def sax mais bu ñu demoon koy réaliser am ci ay jafe-jafe mën na daanu suñu kaw ba tax na lenn moom dinañ leen ko assurer la axe bii moom suñuy priorité la. muy diggante nindi ak fii parce que jafe-jafe yu baree baree bari infrastructure bu bu jàppandi moo koy waral parce que sànq suñu yaay ji suñu mag boobu soulevé na ci question boobu noonu nee na da ngay nekk xale wéroo xale bu wérul wala jigéen gu wérul pour nga rallier fii ak Ndindi c'est tout un problème te xam ne ku nekk wëradi mën na laa dab jamono ju nekk ba tax na accessibilité bi mu war a am du ko am loolu ay jafe-jafe yu doy waar la parce que infrastructure moo yor dëkk dëkk boo fexee ba demlante bi dikkalante bi yomb rek amaana lu baree bari mën na ci saafaraw ba tax na ñun ci loolu la ñuy yëngatu entreprise BTP lañ yor ñun sax ñu ay politiciens parce que politiciens li ñu koy baaxoo mooy comme li sëñ Moustapha doon wax sànq sax di wax loo xam ne nag sudul noonu la ñun nekkuñ ci loolu amaana politique bi nattoo ñu ci dugal ngir bëgg a jariñ suñu askan ndax jariñ suñu askan kat tàmbalee ci na li nga am di la yàlla wërsëgalee nga koy jéem a def ci askan bi président Ablaye Sylla ci loolu la nekk ci la nekk ay années yu yu baree baree bari depuis 2016 mi ngi ci activité yooyu noonu màggalu Touba kii dëkk kër kàbbu sànq mi ngi ma koy seedeel suñu camions yi flotte matériel boobu du flotte matériel bu ndaw loolu rek nga gis camions yi nga gis mais engins yi boo leen gisoon da ngay xam ne lii la koy déplacé foofu rek jam ñaajo ba fii Touba du ay caaxaan du xaalis bu ndaw loolu nga koy def depuis 2016 ba léegi musoo sëqat musoo onk musoo wooku la ci jàppale kon kooku bëgg naa dimbali askanam ba tax na ñun ci loolu lañ nekk Sëñ Xaadim ak ñeneen ñi sama collègue yii nii cité nañ sànq ay réalisation ab Ablaye def ba tax na lu mu fi def ci wàllum assainissement lu ci mel ne réalisation wu marché bi assainissement bi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ni ñun mënuñu koo xam parce que bi mu koy def bëggul woon mu fës ndaxte xalaatul woon ne dina mës a am dina dugg ci lu mel nii te da ko doon def aussi te yàlla tax parce que amaana man li ma gëm mooy booy def te yàlla tax jarul nga koy siiwal parce que loolu sa digganteeg yàlla suñu borom la du sa digganteeg doomu aadama yi moom gis-gis boobu la amoon moo tax lu ci baree baree bari souvent nit da lay interpellé naan la yéen li ngeen di def dara mais amul leen média doo leen ko médiatiser wala amul visibilité wala yu demee noonu mais ki koy def la ki koy def li mu ciy sàkku la loolu moo tax mu koy jëfee noonu kon genre doomu aadama yooyu noonu nga xam ne ay nitu valeur lañu dafay commencé di jafe suñu dëkk suñu suñu société ba tax na ñun président Abdoulaye Sylla ci loolu la ñu nampatal ci dinamique boobu lañu nekk ak moom ba tax na bi mu bi mu bi mu tàmbalee gis doxinu askan wi ci la sóobu ci lii nii nekkat politique du loo xam ne da ciy jariñu waaye da nga war a jariñ sa askan parce que sànq am na ku ko fi soulever léegi nee na dañuy ñëw di leen nax di leen nax di leen nax parce que loolu moo tax ñuy considérer politiciens yi am loo buñ leen di dugal parce que yi ñuy def la bu ñu bëggee dara dinañ ñëw ci yow fekk ba wax la loo xam ne nii amaana sax munuñu ko duñ ko def ngir bëgg nga votel leen wala nga fal leen bu ñu demee fàtte nañ leen ba pare en plus Touba en général laay wax Touba ak li ko wër ñun dañu tàmm leen képp ko bëgg falu rek da ngay ñëw fii fexe bañ fal la bu ñu la falee dem nga fàtte léegi nag adduna bi ni mu tëddoo foog ñuy essayer di fal suñu bopp. parce que bu ñuy fal suñ bopp dañuy gouverner ndoo ak suñ bopp loolu mooy gën a yomb boo gisee ndaw bu nekk ci dëkk ba am engagement bien avant muy laaj ci dara ci yéen am détermination jege askan bi daan leen dimbali kooku bu ñëwee ne leen jàppale leen ma ñu dem ci lii buñ demee ci lii amaana suñu ay questionnement ak suñu ay problématique dina saafaraw kooku war ngeen di ngeen koy accompagner parce que boo leen ko accompagner bu faloo day day ànd ak yéen gouverner wala day ànd ak yéen di leen représenter ci pencum ndawu réew mi ba tax na seen ay revendication ak seen ay souci mu mën ko fa di porter waaw ba tax na élection yi beneen configuration la am bokkul ak élection présidentielle élection législative mbiru gox lam mën nañ ko dëppalee lu mel ne nawetaan parce que ki la gën a jege moom moo gën a xam sa ay préoccupation maanaam moo gën a xam si ay jafe-jafe parce que ku dëkk ku dëkk feneen ci beneen gox munul xam li nga li nga yàlloo yow ak sa ay jafe-jafe léegi nag ki nga xam ne nii moo la gën a jege yàgg nag yow amaana jàngee na sax foo fii nga fii nii parce que 2000 ba léegi ñu ngi ñëw fii ñun 2000 lañ dugg fii école 2000 ba léegi bi ñu xàmmee ba léegi yoon bi nii la mel kon loolu doy na waar 2000 léegi léegi ñaataat la 24 ans ci diggante boo xam ne nii matul sax 3 3 kilomètres loolu xam nga ni sëñ bi réew mi dellu ginnaaw la ba tax na taxawaay yooyu noonu. gis-gis boobu noonu moom lañ am ba bëgg cee jàppale suñu askan xam nañ seen ay jafe-jafe te seen ay revendication lu ñu lu ñu yàgg a gis la du loo xam ne di ngeen ñu ko wax mais lu ñuy dund la parce que dañ koy dund ak yéen kon kooku nag mën na laa porter sa ay sa ay préoccupation ba tax na daal wax dëgg yàlla président Abdoulaye Sylla foofu la nekk ñun ñii nga xam ne nii ñooy dagaan seen baat tamit ci loolu la ñuy nekk li ñu bëgg doon mooy bëgguñoo doon benn député parti politique wala benn député coalition de parti parce que bokkuñu ci benn courant politique bokkuñu ci benn doctrine politique bu ñu doonee député incha allahu rabbi député askan bi lañ bëgg doon. parce que député yi ñu fi daan gis fii ci Touba nii ay député parti politique lañ moo tax souvent dañuy fàtte sax jafe-jafe askan bi parce que da ngay dem au niveau de l' assemblée ñu proposer une pro un projet de loi projet de loi bi amaana yow doo xool sax doo mesurer gravité bi. par rapport ak ñi la fal parce que parti politique boobu noonu da laa porté ci liste rek mais falu askan bi moo la fal yow doo doo jël en contre préoccupation askan bi mais préoccupation parti politique bi ngay jël ñun façon député yooyu lañ doon gis mais loolu dañ fay bëgg mu dañ fi ñun incha allahu rabbi boo booleel ñu falee député askan bi la ñuy doon duñ de doon benn député coalition de parti duñ dem benn député coalition rupture boobu lañ bëgg a matérialiser. ba tax na xam nañ souci yi am nañ ci ay solution parce que ñun suñu état yi ni muy tëddoo bis bu ñu sagganee ba amuñu représentativité ñun surtout waa Touba parce que jafe-jafe assainissement sonal nañu kër yu bëree baree bari ndox mi ñu mi ngi koy nangu Touba te yooyu noonu day avancé felewo boobu noonu day avancé mën na avancé ñaanu ma ko yàlla ba dem ci geneen gox-goxaat yi mais loolu nag lu ñuy freiné la mais niñ koy freiné gars yi duñ ñu ko freiné la ñun ñoo koy freiné ñoo koy portal suñu bopp parce que ñun li ma gëm mooy ñun bu ñu amee benn organisation bu am solo ñuy xàccandoo ni dóorandoo porté kenn ñun waa Touba xajuñu ci kenn doole bi ñu am xajul ci kenn mais benn inconvénient rek moo am suñu diggante ñun dañ dul nangu di booloo dañuy bëgg di séparer wu pour des intérêts crypto personnels maanaam ku ci nekk da ngay bëgg di jiital sa intérêt loolu mooy indi jafe-jafe souvent yii ñuy am nii ci dëkk bi ba tax na loolu daal maa ngi leen ci ñaax yéen ñëpp xam ne lii du suñu mbir suñu mbir la mbiru ñun ñëpp la ñun lu ñu bokk la lu ñu bokk nag bu ñu ko bokkee dañ koy waxtaanee xool nam jagee ñu jëm ko defee noonu parce que lii ñuy def nii amaana ñun amul lenn luñ ci bëgg dugguñu ci politique ngir bëgg enrichir wala ñu bëgg ci xaalis wala dara ñu ngi liggéey yàlla mi ngi ñuy suturaal entreprise de ñor di emploi ay doomu Sénégal ñu fay liggéeyee di créer valeur ajoutée kooku nag mi ngi ci ci luy doxal réew mi parce que réew mi fi muy jëmi tant que joxuñu ko ay entrepreneur wala entrepreneur yi genre réew mi réew mi fi fi ñu bëgg mu yegg du fa yegg parce que ñi fi ñi fi ñi fi ñi fi jéem a jël réew mi ñëpp avant ñoo yegg si ci réew mi man de mosuma fay gis ku fi jël réew mi teg fi dara balaa nga yegg ci réew mi mais ñooñu nga xam ne amoon nañ beneen vision avant ñoo sàkku dara ci askan wi ñooñ dañ leen di war di bàyyi xel parce que kooku am na lu mu ci mën ci réew ba tax na loolu ñaax bu ma leen doon ñaax la rek xam naa ne jotaay bi comme kii na te yitte yi tamit tënk na leen dañuy gàttal foofu kàddu gi rek xam naa am na yeneen échéance yoo xam ne nii dinañ ci demaat ku ci nekk ci gox yi nga nekk danañ fa dem fekk la fa waxtaan ak yow xool lan mooy sa ay jafe-jafe bu jaree saafara loo xam ne nii mën nañ koo saafaraal suñ bopp dinañ ko saafara incha allahu rabbi préoccupation yi ngeen fi wax léegi ak jafe-jafe ci mayo yi ak yooyu maa ngi ci doon waxtaan ak xaadim am na loo xam ne nii ñi ngi leen koy préparé la bu soobee yàlla bu bu buñ ko kiyee dinañ ko jox xaadim mu jox leen ko yéen waa ay sey ak yeneen ak yeneen suñu jafe-jafe yaay yi c'est 50 pour cent kii mi ngi koy évoqué sànq xaadim association patronat la bëgg nañ koo dérouler te buñ koy dérouler incha allahu rabbi Touba lañ ciy njëkk a bàyyi xel parce que dinañ ñëw fii créer fi kër c permettre suñu yaay yii ñu jàng ci métier bi nga xam ne nii bëgg nañ cee exercer wu ñu préparer leen ci ba ñu mucc ayib bu ñu muccee ayib ñu teg ay mécanisme de financement yoo xam ne nii di ngeen ci mën a jàppandal mais loolu yëpp dafa am ay lu ko jiitu li ko jiitu mooy li nga xam ne nii moom lañ jëm nii foog ñu am fa représentativité bu am solo parce que jafe-jafe yi bëri na yàqu-yàqu yi bëri na foog ngeen am ku leen teewal ca pencum ndaw réew ma mu mën leen a porteel seen ay message di ko porté dignement nag ñun gëm-gëm boobu lañ am moo tax ñu ne woon nañ ñëw fii waxtaan ak yéen pour une première xam naa beneen yoon dinañ ko gën yaatal comme ni ko suñ papa waxee génne ko ci biti ñëpp ñëw ñu toog wax ak yéen parce que ñiy wax ak yéen seen ay doom lañ duñ ay gan ci yéen li ngeen di liñ doon wax sànq li ngeen doon évoqué sànq rek képp kuñ ci bëgg a kii wala mënoo ñëw gis wala nangam nangam loolu du ca am suñ kër papa ngi fa la ñuy yeewoo suñ njaboot fa lañ nekk ñii la àndal ñii lañ mës a àndal te ñii la ñuy àndal ba ñuy sàngoo suuf ñun ci loolu lañ nekk incha allahu rabbi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci toogaay bi di leen jéggalu nag ci waxtu yi nga xam ne nii jël nañ ko ci seen i temps lépp loo xam ne nii wax nañ ko fi mu jàkk xam leen ne yàlla suñu borom la lépp lu ci dënk tamit xam leen ne doomu aadama bi doon wax ak yéen la ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax jërë ngeen def